ñu ngi lay nuyu Abdou Karim. maa ngi fay maa ngi lay fay yaa maa ngi sant bu a baax maa ngi lay maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar euh, di bége bu baax a baax asalaamaaleykum. tey noo gisee mobilisation. waaw euh, mobilisation bi nag dugguleet xam nga Sénégal dafa mus a am relation bu rafet ak Palestine boo seetee maa ngi koy wax sànq ma ni euh, Léopold Sédar Senghor passeport diplomatique bu Sénégal la joxoon Yasser Arafat xam nga xam nga Palestine dañ ko reconnaître comme état tey booy ut visa pour dem Palestine Israël moo la jox. te pourtant ñoom ñoo fa mujjee ñëw loolu yëpp nag mooy nasaraan si nga xamante ni ñoom dañu ànd si ginaaw juif pour noot Palestine. injustice boobu doy waar loolu nax euh, nga xajal nit mu nekk sa dëkk ba nekk fa à l'aise dem ba ëpp la fa droit loolu tamit est-ce que jotul euh, non seulement ñu xeex injustice bi ñuy dugg ak bi ñuy dund actuellement euh, mooy palestiniens yi mais ñu xeex seen àq ak seen yeleef vraiment seen diggante Israël ñu dox ci àq ak yeleef parce que doy na waar Karim. dafa am ñu leen ni dooleel. mooy xam nga comme ni mu demee ñun nga gis suñu njiit yi nga xamante suñu njiit yi suñu autorités yi nga xam ñoo fi nekk ñu fal ñoom ni ñu am ni sañ taxaw gisoo benn kenn ku représenté du Sénégal fii c'est que loolu la amee si àdduna bi yëpp saa juif dañoo réussir déggoo booloo ba nga xamante a disperser affaire yi pour ñoom ñu booloo yor monopole àdduna moos li xew Israël li xew di mooy Palestine Israël li muy def Palestine foofu ñëpp xam nañu loolu tooñ la apartheid cest à li gën a ndaw ci àdduna bi gën a bon li yàlla jox ci te pourtant gars yi ñu ngi défendre te mënuñu défendre palestinien yi est ce que xam la tey da ngay gis rapport diplomatique yeeg union ONU Nations Unies ñëpp ñi ngi wane seen mécontentement naan nañ bàyyi góor ñu sëy nañ liberté sexuelle lu nekk ñu koy défendre ba ne dañuy yëkkati drapeau homme LGBT te drapeau Palestine ba léegi mënul flotter ci yenn bërëb yi 54 états rek ñoo reconnaître ambassade Israël Palestine ci seen dëkk xam nga loolu c'est en fait c'est inhumain ñu comprendre quoi a booloo wane seen mécontentement ba seen accord diplomatique yi nga xam ne seen nguur yi ñu suñu jiite am nañ ko ak relation Israël Palestine du moins Israël ñu ñu ko bu ñu ko rompre pare ñu wane ay manifestation xam day wane opinion internationale bi yëpp que le peuple sénégalais tous les musulmans umma bi yëpp wane nañ seen mécontentement comprendre ni palestiniens seen deret yi tuuru dañ ko tuur pour képp kuy jullit ndax alxuraan moom moo cité baytul muqaddas fa la njëkk a jublu. je me demande est ce que jotul sax suñu euh, kilifa yi nga xamante ne ràññee nañ leen lool ci alxuraan ràññee leen su diine ñu toogaat. expliquer euh, jeunesse bi lan mooy réel euh, problème bi am entre Palestine ak Israël dafa mel ni jeunes yu bëri sax comprendre ñu moo tax boo seetloo ñu bëri dañ ne tek tekkaaral ci mbir mi. en réalité wax ma lan nga xam ci diine loo xam ne gis nga ñu expliquer ko réellement ni mu demee fii waaraatekat yi bëri wuñ fi ay naan yu bëri ay nante am nañ sikkim rek mën a toog. jàpp ay expliqué par rapport nu mu arrangé état mais kan mooy mel ni imam Aliou Badara Ndao toog décortiquer lan mooy franc-maçonnerie lan la islam wax ci politique wax kan mooy Sidna Mohamed nga xam du ko jullee sallallahu wax diine bi ni ko yonent yàlla Mohamed waxee dañ lay jiñ terroriste sa sa xaritoo ak Macky Sall day yàqu doo am passeport diplomatique doo am dañ duñ la jox oto doo jiite cest loolu mooy problème bi en fekkee ne yow diine bi moo tax amul kenn kuy défendre diine te amoo ay jafe boo ñëwee da ngay xeexal dine foog nga tëj kaso foog ñu toroxal la foog nga ñàkk parce que loolu rasul salaam dund parce que dine ba laaj loolu léegi nag actuellement fi ñu toll nii ñun dañoo am ay njiit yoo xam ni cest à taxaw ni rek ànd ak seen i lobby am seen nit yoo xamante ñoom dañ leen fi nekkal di jàpp aay di ko defar pour mu jekk par rapport ñoom seen njiit mais li war a xamal juliti ndaw juliti ci diine bi dafa bari lan mooy franc-maçonnerie kan mooy Seydina Mohamed lan ko ataaya moo leen tere julli jàkka ja ataaya ak wax yu ñàkk fayda xamuñ ko parce que ci waaratikat yi la et léegi ñu wax ko fa ñu nekk naan ay jabar law bi dafa neex ak ay jabar géwél lañ wax ak ay wax yoo xam ni même jàngalam Serigne Touba sax jeunesse sénégalaise xamuñu ko Serigne Touba bind ba bind loo xam ni soo ko jàngee boo doo ñàkk buñ toppoon yooyu tey duñu ñàkk bay agressé fayda suñu bopp kon tey am nañ loo xam kenn kenn Sénégal am na lu ne waxuma la ay pétrole gazé boo gasee fii léegi nabdoo bi soriwul donc kon lan moo tax ñu mais malheureusement amuñu ay waaraate yu taxaw yu mel ni comme imam Ali Badara Ndao ay ay waaraate ay prêcheurs imam yu bëree bëri c'est des complices moo tax nga gis mu demee nii mais normalement ful bii nii dafa waroon dox ndànk dem ambassade Israël ñu taxaw fa ne duñ fi jóge fukk tant état du Sénégal romp euh, relation ak ak donc loolu c'est ça buñ ko woo koy wax na ñu lay sikkal di ngaañ mais Sénégal moo bëri naafeq dafa bëri naafeq te billaahi wallaahi keroog yuuxu dina jub ko fogeewul wallaahi lazim. ñu lay jaajëfal bu baax merci beaucoup merci beaucoup merci te seen coono yi bis bii yal gis naaj wii tàppe ci yéen te ko faalewu ko ndax sotal islam allahu akbar ya ixwaan mbokk jullit ñi li ma yëkkatiloo kàddu mooy xool leen tey ay jigéen ñuy dégg partout dans le monde ñu ne dañuy xeex ngir àq jigéen ak yelleefu jigéen waa mbokk yi benn question lay laaj ana ñi doon wax ni jigéen buñ ko mayee mariage par force nañu jóg ana ñi doon wax ni dañoo jóg pour benn jigéen buñ ko bundoxataal ana ñi doon jóg naan kenn du gëdd benn jigéen ana ñi daan jóg naan kenn du dóor benn jigéen tey la ñuy rey ay jigéen ñoom ñëpp ñu noppi yaay xwaan tey la fekk tey la fekk ay jigéen seer bi waañ ñuy ñu fat leen cin la togg ya yëpp jaxasoo doon ay dereet xanaa jigéen ñooñu nekkatuñu ay jigéenu àdduna xanaa jigéen ñooñu doonuñu woon ay yaay am ay doom xanaa jigéen ñooñu yellewuñu ñu leen di yërëm di leen di respecté xanaa ñooñu amuñu droit de vivre mbokk ana xale yu ndaw yi sànq ñu ngi dégg discours bi ñu ñuy wax lu tolloog 65 xale ñu rey leen moo ne benn bakkan ci doomu France buñ ko reyoon Sénégal ñëpp jóg àdduna wërngal képp jóg taxaw xanaa bakkan du bakkan xanaa bakkan du bakkan xanaa borom wa taala waqul an nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal uzna bil uzn wal anfa bil anfi wal juruha qisaas alquran bi mu koy wax ñun fu ñu nekkoon wala dañuy xaar ba tey ñu koy nax sayal mbokk yi de bokkoo ci ñi ko nax deret gi leen yëngal deretu al iman deret bi leen yëngal mooy xormal masjidul aqsa bi buur bi subhanahu wa taala wax ci alquran buur bi yàlla nee na baada auzu billahi min shaitan rajim mu ne subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi al aqsa ban ban jàkka la yàlla tudd foofu ana ban jumaa la yàlla tudd foofu du moo ñu fi tax a taxaw du moo ñu fi tax a taxaw فداك يا أقصى فداك يا أقصى بأرواحنا ودمائنا lan la leen Aqsa jaral mbokk yi lan la leen jaral yàlla dégg na leen allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad wa salaamu aleykum wa rahmatullah genn bu ndaw leen oustaz nga may baal mooy dama bëgg li ngeen wax tey bu fekkee ne mu ci biir xol yi lenn laa leen ñaan yaay yooyu ñuy far seeni ay doom suba ngoon ak wayjur yooyu ñuy jàpp di leen rey seen kawlal ak boroomi kër ku mu jaral ngir yàlla li nga téye ci sa poos dimbalee ko fii ñu dajale ko yónnee ko waa Palestine amatuñ sa yére yu ñu sol wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf soxna si aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir mbokk yi ginnaaw bi sante yàlla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ànd tey di taxaw suñu mbokk yi la xamante ni nii ñoom la ñuy faagaagal fële sa Palestine nga xamante ni nii suñuy mbokk yi diine lañu ginnaaw bi nga xamante ni nii islam moom moo ñu boole yàlla subhanahu wa ta'ala wax ni innamal mu'minuuna al ixwa mbokk yi bu fekkee da ngeen koo fàtte moom mooy première xibla jullit ñi jullit ñi julli nañ ay at fi nga xamante ne nii fa lañ doon féete moom moo di masjidul aqsa xasida di nga xamante ne nii moom la ñuy jàllale ñoo ngi ko bind ci làmmiñu al qudsu bu leen jàpp ni man maay wax waaye déglu leen ngeen jàpp ni masjidul aqsa al quds moom mooy woote di wax man xursu maa yuuxooti tey dama gërëm man xursu maa yuuxooti tey dama gërëm wallooti leen ma ndaxte man ci ak lëndëm man xursu maa yuuxooti tey dama gërëm wallooti leen ma ndaxte man ci ak lëndëm jullit ñi jug leen jullit ñi jug wallu aqsa moo ngi lakk gaaw leen bu leen seetaan yahuud yi am fi ndaw jullit ñi jug leen wàllu aqsa moo ngi lab gaaw leen bu leen seetaan yahuud yi am fi ndaw da ngeen a fàtte ak ay ak ay mayam da ngeen di dog ba xëy gis mu xajam da ngeen a fàtte aqsa ak ay mayam da ngeen di dog ba xëy gis mu xajam da ngeen di bàyyi noonu ko daal di dem da ngeen di toog mu faat tas ay goxam xanaa xamoo leen ni yoneen fii la jullee masjidul aqsa fa la yonent sallallahu alayhi wa sallam jullee doo a dem kaw asamaan moo tax xutsu daal wax ni xanaa xamoo leen ni fii la jullee door a jawal kaw asamaan jëli mayam xanaa xamoo leen ni fii la jullee door a jawal kaw asamaan jëli mayam xanaa xamoo leen yàlla moo ko barkeel ak li ko wër teg de teral dot yi mayam xanaa xamoo leen yàlla moo ko barkeel ak li ko wër teg dal teral dot yi mayam wallahi wallahi naa ni bu ngeen ko sàgganee ba noon bi jël ko ngeen torox dee ci lëndëm wallahi waat ni bu ngeen ko sàgganee ba noon bi jël ko ngeen torox dee ci lëndëm jullit ñi jug leen jullit ñi jug leen takku ci Palestine rey nañ njabootam mabbu jàkkaam tes këram wasalaamaaleykum wa rahmatullah allahu akbar